axusubillah bisimillah inna waliyallah wajal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawiru xalbi arsida barki borom tuba asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki UK bokki fédération yastabsiruna bi nihmatin ci njiital Mouhamadou Lamine Ndiaye noo ngi leen nuyu yéen ñëpp ak fépp fu nekk rek bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ziyaara bu di leen ndokkeel di leen wax ne ngi fii tey ci jumaa ju tedd ji ci sang yu tedd yi nekk ci sama wet muy sëñ Abdou Lahad Bousso moom soxna maam Asta sëñ Abdou Lahad Bousso moom sëñ Thierno ak sëñ Abdou Lahad Bousso moom sëñ Maxtaar di siyaare ñëpp nag euh, di siyaare bokki taalibe yi sang yu tedd yi di leen jaajëfal baax tam seen taxawaay di xam ne yasab siroon na bi nexmatin ginnaaw bu ñu dajalee addiyee ji nga xam ne moom lañ baaxoo di indi at mu ne yàlla dogal na lenn li ñu ko jox Cheikh Modou Mountakha lenn li ñu ko ñu di ko yóbbu ko kër maam Cheikh Ibra lenn li ñuy bàyyi ko fii ci jumaa ji indi ko fii ngir jàpp ci liggéey bi waaye nu xam ne bokk yi euh, li nga xam ne ni mooy som bi nga xam ne nii moo jëm si ci jumaa ji xeebuñu ko nawuñu ko waaye kaddu yi nag day kaddu yi soññee yoo xam ne bokki taalibe yëpp xam ne liggéey bii di xidma muy liggéey jumaa ji benn liggéey kawewu ko te liggéey la boo xam ne tamit liggéey bu sëñ Tuubaa gërëm la ba tax na ñoo ngi yëkkati suñu kàddu indi fi nag addiyee joo xam ne nii mu toll ci cent dix mil ñaar fukki junni ak ñaar mu jëm ci liggéeyu ma bi te ku ne xam na ne nag bu ñu xoolee UK bi ni mu toll wax dëgg yàlla li fi di taalibe war nañoo mën a gën a pëseefu war a gën a mën a jàpp ci liggéey bi ndax ñii fi nekk kat ni ñu koy faral di waxee rek ñoom ñooñu fi nekkal ñun ñoo leen war a nekkal ci itam ci àll bi ndax bu sëriñ bi joxe woon ndigal tey ne murit bu ne waxtu wu ne dañ koy ay ayloo bu ñuy defee ay fan wala ay dem kon jot naa ne maanaam dana diis lool waaye nag sëñ bi def na ci ak jàpp ñoom ñu bàyyi seen lépp nag di ñëw di liggéeyal sëñ Tuubaa fi nga xam ne murid yëpp war a daje kon ñi ngi soñ bépp taalibu yàgg sëñ Tuubaa rawatina daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci yasabsona bi nihmatin daayira bu nekk nag sëñ Abdou Lahad bi wax na ak jëwriñu daayira ba ba jëwriñu na nag yoo xam ne joxe woon ay ay ndaw ba man may def ak ñoom contact ne daayira yëpp dañ ciy di dajale addiyee di ko indi Cheikh noonu lañ war a gën a pësteefu gën a takku di dajale addiyee joo xam ne da jëm ci jumaa te ku ne xam ne ne jumaa ji ñaari événement rek mooy yi nga xam ne nii moo ëpp doole ci liggéey yi te it mooy gën a am solo mooy koor gi ak màggal gi te ku ne xam ne màggal gi li ci aju moom réy na boo xam ne kenn mënu koo xayma mais soññ sama bopp nag di soññ bépp taalibe bu yaakaar sëñ Tuubaa tey dégg suñu kàddu foo mën a nekk am na cellule boo xam ne nii ci Muxaddamatul Xidma la incha allah bii ku ma woo sama numéro téléphone dinaa la booleeg dëkk bu nekk a fa nekk su ko ngay jokkoo ak moom rawatina nag jëwriñu daayira yi ndax jëwriñu daayira ñoo war a jàpp ci liggéey bi te xam ne liggéey bi benn liggéey kawewu ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di xam ne lettre tontu bi incha allah bi bu génnee dinañ ko dugal ci groupe yasab sunu nehmatin yónnee ko jëwriñ ji moo tasaari ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla jëf ji lu mu néew new yàlla ñu ko sëñ Tuubaa nangul lu mu bari bari itam yàlla ñu ko sëñ bi nangul wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax rawatina sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk euh, Angleterre ak li ko wër muy UK bi yëpp. di leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral di leen nuyu tamit ci turu Sëriñ Afiya Buso mi nga xam ne moo jiite daayiram Xadimatul Xidma ak jëwriñ yi nga xam ne ñoom lañ toogal ci jataay bi. muy sëriñ Abdul Ahad maam Assa ak sëriñ Abdul Ahad Mokhtar ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi fi teew di la nuyu sëriñ Fallu di nuyu tamit waa fédération yastabsiruna bi nihmatillah Touba UK ci njiital sëriñ Lamine Ndiaye ak mbokk yi nga xam ne ñoo aju ci fédération bi yëpp. di am mbégte bu baax a baax rek ci yëg-yëg bi ngir xam ne liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu daayiru Muxaddamatul Xidma te jëm si ci jumaa ji nga xam ne borom moo ci waxoon wax yu rëy digal taalibe yëpp ngir ñu taxaw ci waxoon ne ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dootoo feeñ kon dañuy jàpp ne su fekkee ne ñi ngi taxaw barab bi di fi jooxe yi nga xam ne moo taxawoon a jóg sëriñ bi muy taxawal lislaam euh, moo xam ci julli juróom yi ak sàmm warma ji ak yi fi aju ci ay xeeti jaamu yëpp waaye nag lu aju ci entretien bi entretien général nga xam ne loolu mooy yu bëri la laaj teyit lu sax la ñu jàpp ne ni ñuy dajalee suñuy addiye fii jàpp nañ taali bu nekk war na cee mën a barkeelu ngir ci yu mel noonu loolu moo tax daayira bi léeg-léeg mu yaatal ay jéegoom ngir di leeral liggéey bi bokki taalibe yi donte information bi sax dese naa yaatu ci ci àddina bi waaye yéen ngeen bokk ci ñi nga xam ne wuyu si ngeen ci comme ni nga ko waxee léegi nag Euh, fédération UK yàlla dogal na daaw ci novembre octobre novembre euh, ñëwoon nañ Angleterre doon soññ bokki taalibe yi ci turu daayira Muxaddamatul Xidma dëkk yi nga xam ne demoon nañ fa yëpp it li ñu leen doon leeral mooy liggéey bi li tax ñu sañ leen cee soññ rek mooy day mbir moo xam ne lu sunu mbir mbirum mbokk yëpp la rawatina bokki taalibe yi muy dëkk yi nga xam ne yëpp ñu ngi ñu ngi Angleterre yoo tàmbalee ci Scotland ba ci Manchester Birmingham ak ay Leeds Leeds ay Saphir Brighton Crawley Londres euh, Bristol euh, Oxford ba ci euh, yenn dëkk yi nga xam ne tudduma leen te te fàtte leen yëpp ñu ngi leen di soññ li suñ fàllu wax tamit dafa mat a leeral maanaam liggéey bi ñaari at lay doon ñaari ñaari kii lay doon ci at mi ndax koor xam ngeen ne daayira bi daf nay danay soññ ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ndax budget bu rëy lay doon muy dogu yi iftaar yi ñu fiy def muy budget bu kawee boo xam ne daanaka ëpp na 60 millions su dee màggal nag ni ñu saxee nii di di def di di seetal bis bu jot ak di saytu li fi yàqu ñu koy defar màggal nag dañuy gën a yaatal loolu muy def entretien général boo xam ne dafay ànd ak liggéeyu màggal gi ci biir liggéey mag muy budget bu kawe kawe loolu moo tax tamit kon ñaari fànnal ñaari kii doon ci at mi kon moo tax màggal gi dañuy soxla euh, dajale ay addiyee yoo xam ne day jëm ci entretien général bi ak liggéeyu màggal kon loolu euh, ñu ngi ciy soññu bokki taalibe yëpp di ci soññ fédération UK di ñaan suñu borom mu defal leen tawfeex ak taysir ba ñu am man manu luñ bëgg a liggéeyal Serigne Touba rek lu leen romb rek ñu mën caa sànni seen seen dara lu ñu yóbbaale te it yàlla na ko yàlla def barakat xaadim rasul ñu ngi sant bu baax nag ci li weesu ci koor gi di sant it ci jéego yi ak ci jëf yi nga xam ne jëf nañ ko rawatina ci jaayante añu jumaa ji ñu xam ne Angleterre mooy mooy mooy mooy porte bi moo ko gàddu yeneen dëkk yi doog ko cee fekk ñu jëf ci jëf ju rëy a rëy di la beral cant yi yow suñu fàllu yàgg jëwrin yi nga xam ne ñoom nga àndal liggéey bi yëpp ñoom suñu Abdou Akim Mbaye ñoom suñu Abdoulaye Dieng Faw Seyni ak bokk yëpp rek ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.